suñu amoon sa sañ loolu lépp nañ ko def mais su mënul nekk rek lu mënul nekk rek nañ ñu ko nangul te bu mu tax bu mu tee ñu gën a takk digg yi parce que avenir u Sénégal la du affaire nit du affaire koñ du affaire dëkk ñaareel bi mooy dama bëgg nit ñi bu ñu waxati sax lu jëm ci Macky Sall on se trompe de combat Macky Sall keroog bu mu nee man dootu nekkatuma candidat dañu pare moom du suñu adversaire waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat wu Macky Sall Amadou bu yàlla ñàkkee bëgg Sénégal dëkk dëkk dëkk rek na ko jox Amadou wallaahi yéen xamu leen Amadou Sénégalais yi question bi ñu waroon posé rek mooy simple fonctionnaire nu mu mën a yor alal yépp loolu rek jar na bañ a voté ko maag moom ak kii ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla ñu ne amuñu dara wala am nañ tuuti waaw fan la milliard Amadou Baye jóge est Sénégal dañuy posé question boobu. kon loolu rek doy na ñu ne kii man war lu mën a nekk président réew savez man bëgguma ñu dugg ci débat de personne dégg ñi naan dëkk sàngam la jógee du Sénégalais déedéet Sénégalais la fii la jàngee fi am nationalité def fi tout sa toute sa classe tout Sénégalais la gënuma koo nekk Sénégalais tey ñëpp jógee ci dëkk yooyu gis nga Sénégal dëkku teranga la ñun ay panafricains lañu ay sénégalais yu dund feneen ñenn ñu dund fii ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam sénégalais la ñun ñëpp bu ñu stigmatisé kenn. bu ñu stigmatisé kenn loolu baaxul suñuy natt dañu wax kii est-ce que ay loxoom set na est-ce que bëgg réew mi est am na compétence yi. nag première question tontu naa ci ba noppi ñaareel. waaye bis bu ko joxee réew mi dénk nañu réew mi waa bitim réew xam nga ci samay série vidéo yi ma defoon am na yenn ñaar yu waroon génn waaye jaratu ko benn bi ci moom laa ko defoon ñi gis-gis nañ ko benn bi ci moom laa ko defoon spécialement mu ngi nag di wax yor na meñam di wax nee na ñu ngi lay attaqué bukki nag bu yobee waxambaana Ba mënu ñoo yàpp ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu warul jël ma ne ko tegal ci suuf. jiite na direction générale des impôts ma yor syndicat yàgg naa laal lu warul laal man vérifié naa entreprise bi ñu ko ay milliards mu laal ko ko wàññi ma ne ko boo ko laalee ma diggaale ko yow. te taxaw naa assemblée nationale interpellé ko ci li nga xam ne alalu réew mi la mu salfaañe ko ngir bëgg a neex tubaab yi kooku di ko jox réew mi danaa may ne ñu ne compétence compétence la expérience expérience la ndax ndaw alalu réew mi kon may lancer aussi un appel kilifa diine parce que gis ngeen li ñuy wër di nga di nga ci même ràngeen bi rek lañuy jëlaat dem ci kilifa diine yi waaw réew bi mu ngi en dañ ñoo rax wax ana ñan ñoo leen rax ñun ñi neewoon ñoo leen rax ñoom ñoo jékki-jékki mu mel ni xal bu nekk seen loxo ñu gi sànni ñu ci biti ak terroriste ñu ngi ko génne nii ana ñan ñoo ñu rax kii gëmul tarixa kii gëm wax waxatu ci réew mi tey moom lañu jël bu ko def ci jomaay manipulation bi dafa doy ku am sa programme wax ko sénégalais boo amul programme demal nga toog yi ñuy bi may nekk fële li ma gën a métti ci communauté bi nga xam ne ñaari président yi génne woon na du le fait ñu wax nañu def li nañu def li mais le fait que ñu dugalal leen dugal leen ci débat boobu naan y a des gens qui manipulent les jeunes sénégalais yu ne ñu ne leen dañuy reporter seen élection ñu ne d'accord uñu sénégalais yëpp sénégal Sénégalais yooyu jógoon contre Abdou Diouf ci jamonoom jógoon contre Abdoulaye ci jamonoom nga ne ñooñu dafa am lu ne